mbokk yi nuyu naa leen monsieur le premier ministre Sénégalais yi dañoo bëgg a xam lan moo tax bu ñu gisee tey police ak gendarmerie. monsieur le premier ministre Sénégalais yi dañoo bëgg a xam lan moo tax journalistes yi bu ñuy def seen liggéey ci ay manifestations ngeen di xëcc seen i micro xëcc seen i caméra di leen di dóor comme ni ngeen à Adja Ndiaye bu Dakar Actu comme ni ngeen dóoree ba mu xam feuse bu Bour News. monsieur le premier ministre gis nañ ay policiers ak ay gendarmes bu ñu jàppee ay nit leen di utiliser comme bouclier humain lu Monsieur le Premier ministre, Sénégal doit signer une convention internationale contre la torture gendarmerie day torturer police doit torturer Qui que observatoire national des lieux de privation de liberté lan moo tax di torturer sénégalais yi ba vous les camouflez. camouflage yoo xam ñaari da ngeen di torturer gaañ leen toj seen bopp après ngeen dugal leen kaso ba ñu wér soog leen indi justice comme ça kenn du gis seen góom ñaareel bi mooy ministre de l'intérieur bi fen rek fen rek fen rek la fi nekkee mensonge d'état mensonge d'état di rey doomu Sénégal ba pare naan paaka moo ko rey ñu def autopsie ñu ne du paaka moo ko rey te loolu mooy le dernier rey Ngor rey Bignona rey Ziguinchor ba pare ngeen di génn di fen mensonge d'état monsieur le premier ministre lan moo ngeen di après di police ay gendarmerie seen des di saccager seen ki ci pratique yoyu xamuñu ko Sénégal lan monsieur le premier ministre lan motax ngeen di ray ay Sénégal Ngor biñ doona ak ba musa permis de tuer aux policiers et aux gendarmes vous les encouragez à tuer et à assassiner des Sénégalais qui votent des budgets pour acheter les armes avec lesquelles vous les assassinez lan moo tax cette doctrine de maintien de l'ordre monsieur le premier ministre la justice sénégalaise aujourd'hui fait également du maintien de l'ordre en amenant systématiquement les militants de PASTEF en prison systématiquement instruction Bataille il y a 500 près de 500 détenus politiques au Sénégal monsieur le premier ministre lan motax police gendarmerie procureur ñu leen di mobiliser pour béykat yi di xex sàccum souf pour liggéeykat yu xex pour sen payor ba paré vous ne les mobilisez pas contre les ministres société nationale, contre les directeurs de société nationale sàcckatu khalis fi may daanelee ñaar la tay assemblée nationale dafa ñëw pour contrôler gouvernement assemblée nationale bo xamné depuis septembre néna duñu contrôler 20 milliards yiñ ko denk ndax ki tok fi ngeen ko fan ngeen ne lii barki Dembo à le USAID may 18 milliards askanu Sénégal pour ñu faire mortalité maternelle Nous avons 20 milliards nous koy détourné di ko sàcc ba pare ne kenn du ko Macky Sall da ngay merci euh, la parole est au ministre de l'Intérieur.